من فعل bàyyi sama teewaay bi teewaayu taalibe la teewaayu taalibe Serigne Touba teewaayu ah, ndaw bu dëkk fii ci dëkk bi waaye nag tànk yi ma fi indi tey tànk premier ministre Amadou Ba la euh, moom lañ ñëw fii teewal ci wetu. Euh, waa Kër Chérif ci laa la yëpp di ñëw di indi ay kàddoom di ñëw di indi ay ziaram di feddali kóllëre gi mu amoon ak sëriñ bi donc tey jii nga xamante ne di guddik rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di guddik gàmb ñu ñëw fi ah di ziare njaboot gi yëpp di jiital ci ziar bi kii nga xamante ne mooy xalifa sëriñ bi di teg ci loxoom ziare wu premier donc euh, wax dëgg yàlla ñu ñëwoon comme ni ma ko waxee sànq rek di feddali colère gi amoon ak seen waajur donc loolu mooy teewaay bi tey te ñëwoon fi dem di ziare di saafonteeg mbokk taalibe yi fi nekk yëpp waaw waaw bi daf ko ñor loolu ndax euh, fépp foo jëm ci Sénégal euh, ñi ngi gàmm gi nga xamante ne mooy gën gi mu ndéef donc moom mi nga xamante ne nag wax dëgg yàlla xam nañ teewaay taxawaay bi mu am ci diine taxawaay bi mu am ci këru diine yi wax dëgg yàlla fépp foo jëm tey ku mel ni may man ndaw mi ngi fa dem di ko di ko di ko fa taxawal ndax peut-être euh, euh, euh, liggéey bi bëri na jot bi bëriwul waaye fexe na daal ba fépp foo xamante ne rek ñu ngi fay tàntal gën gi mindeef mu yónnee fa ab ndawam ci turu ki nga xamante ne tamit mooy président de la république Macky Sall ndax loolu la ko sant loolu la ko digal nee na ko fépp foo xamante ne rek jullit mi ngi fa di màggal bis bu tedd bi guddi gu tedd gi na nga fexe ba dem fa na nga fexe ba sa ndaw dem fa teewal ma fa yóbbu fa samay kàddu te fasante kóllëre ak njaboot gi bu baax a baax a baax donc loolu mooy li nga xamante ne importance bi bi bi bi bi nga xamante ne moom la jox guddi gii tey ci taxawaayu ak kilifte bu président de la république Macky wa waaw Galo. yëg-yëg bi mooy suñu waajur su fi newoon du wute lii waaw moom la ñuy gën a sant yàlla ndax kat mënoon na fee jóge mu tëddee neneen waaye ndokk ba nga xam ne def na ci ñun ak mat def na ci ak dal def na ci ak gëm sëñ def na ci ñun ak doyloo yàlla def na ci ak roy Seex ba tax na dara këfuñu lii ba ne lii rek woon waaw loolu rek lañ yëg yëg boobu rek lañ waaw sant yàlla ndax Abdourahmane ku ko wax wax autorité daanaka ay xaritam lañu ñu ci yàlla def na loxoom bari na ñoo xam ne dugg ci ñoom sànq maa koy wax ba na lu mel nii buñ ko ak njaboot gi ñaam du ñu def ci taxawaay bu am solo sëñ bi sëñ Dia Xaadim Dia suñu xarit suñu lépp muy le premier ministre Amadou Ba moo ko fi yebal am ñaanal yàlla li muy yootu te ne ci yoon boobu yàlla yombalal ko ñun nii rek la amul amul leneen loolu nag damay ñaan dootuma ci waxati ndax sànq rek am na lu ma ci laaj ma tontu ci ndax Macky moom président Macky Sall du mën a doon lu dul bàyyi xarit loolu rek mën a doon. la def nag bu fekkee def na wala deful loolu am naa yaakaar amul solo. ndax li am solo mooy ñun boole woon ak sama lu xóot la moom xam na sama baay bi dem xam kon moo tax bëgguma di ci sore ndax boo ci te faaw kon kenn yëg ko waaw te te lu weesu weesu na. waali suñu taalibe la suñu xarit la kuy def la ko yëg te yëg di ma woo ci njaboot gi la bokk ndax lépp lu ne ci moom sëñ bee ko def te amul lu ëpp njabootu sëriñ loolu moom an koy gën a leeral wax lu ko war lu ma xewle li ko war loxoom dina yëg xaru ak yeneen ak yeneen gàmmu bari na ndax ndigal gi mu ngi jóge ci Serigne Saliou Mbacké mu joxoon ko suñu waajur te war nañu gàmm ndax yonent bi suñu maam sallallahu alayhi wa sallam war nañu gàmm ndax ñun boo ñu dàkkee suñu kër maam Seydi Hadj Malick la Seydi Babacar a jur soxna Xadi mu jur sama waajur kon gàmm moom foog naa ñun rek a war a gàmm doy na